الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وصلى الله ورحم وبارك على محمد الأمين والمبعوث رسولا في الأميين وهو أشرف المرسلين وما أرسل إلا رحمة للعالمين وقد ختم النبيين وساد الأولين كالآخرين وآله الأتقين الأكرمين المذهب عنهم الرجس المطهرين كما صلى ورحم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أبي الأنبياء والمرسلين إنه حميد مجيد في العالمين ورضي الله عن أصحابه المجاهدين والغلاظ الشداد على الكفار والمنافقين السابقين الأولين من المهاجرين وأنصار الدين والذين اتبعوهم بإحسان من الرضوانيين ومن غيرهم من الذين جاءوا من بعدهم واقتفوا أثرهم محبين في الله لهم مستغفرين لأنفسهم ولهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين العظيم mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokki réew mi ñi fi teew ak ñiy digloo ak ñi ko booleeg di seetaan ñépp ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Muntaxa ayyadahu llahu wa nasar wa xafidahu wa satar wa rahima salafahu wa gafar di biral nuyoo di beral kilifay diina yeeg yu aada yi ñi ci tudd léegi di axi Cheikh Bachir ak sëñ Koso ak ñi ci tudd ñëpp sëñ Fallou ak sëñ sëñ tey sant bu ak gërëm waa kuréelu jul géej gi ci njiital soxna Sooda di ak ña jàppale di sëñ Yuusu Jóob ak kuréelu Hizbut Tarqiyyah gépp lépp ci turu sëriñ bi ci yitte ji ak pastéef bi ci liggéeyal sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu sëriñ bi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo ko tànn def ko mu jaddit te def ko it muy bu mag bu ràññiku bu ñu mën a wax ne yeesal rek moo ko taxoo a ñëw diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi nujaddidu mu yeesal goo xam ne daj na léppi diine looloo tax soxna yi am ci cër bu am solo ndax seeni wàccuwaay ci diina ak ci àddina ci loolu maa ngi ndokkeel soxna sooda ci tànn gi ko sëñ Muntaxa tànn def ko njiitu kuréel bi yëpp tayit yitte ju kawe rek jum gis ci moom moo war a tax mu def ko te yàgg nañ mu xam ko lu war a mën a nekk la yàgg nañ lool te sëñ bi rekk tax yàlla nañ gën a yàgg te am ci ngërëmul sëriñ bi bi tax te ñu yàlla may nu ko jigéen ñu baax a ngi nag ñoo xam ne jigéen ju ne mën na leen a def ay royukaay kuñ munta roy ba dab ko nag am na bari na sax waaye kuñ munta roy yàlla sàkk ko bu amoon ka jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lay doon te ñu bari ci ñun jàng nañ wala ñu dégg laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun wala iswatun xasanatun liman kaana yarju llaha walyawma al axira wa yàlla roylu na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam roylu na it ibrahim ak ñaandoon ak moom qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maahu id qaalu li qawmihim inna buraau minkum ba ca mujug ñaari laaya ya mu feddli waat ne laqad kaana lakum fihim uswatun xasanatun لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد jigéen ñi jigéen ju def roykaay mu dab leen mën naa bañ a am de waaye dana gën ku leen royul dana gënit ku leen roy tem ëpp la ko lum leen roy kenn ci ñoom di sayida Mariama maa ngi man maa ngi soog a xam léegi sax ci ne Mariama mooy sooda soxna si yàlla terale am doom te mu sa wéet kenn ku mën a jële ci moom doom ja wéetaay wi tax mu koo jële ci moom junj doy na tax na ba xew-xew bi mu amee ak léegi te ni ni ko ñu bari xamee ëpp na ñaari junni at ak ñaar fukk waaye yahood yi ba léegi mënut dugg ci seen bopp mënuñu koo gëm ñoog ñi amul diina ak ñi nga xam ne buñ ko amee it seeni diina doonul diinay asamaan muy lu yéeme Mariama miñ ko terale sax yéem na ko ba mu wax ne anna yakunu li ghulamu walam yamsisni basharun walam aku baghiya qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya nee na nan laay mën a amee gone te man awma boroom kër nekk nekkuma itam ku jaay boppam ñu ne ko noor ñu ko wax rek de ne lay amee ñu la ko diggee de ne lay amee yàlla da ko bëgg a def ngir mu nekk kiimaan doon màndarga ci kattanam mm-hmm. nekk itam yërmande ci ñi nga xam ne ni ñoo koy gëm waaw ña ko dul gëm nag du dugg ci yërmande ji mu doonoon ko sàmm lool suñ boroom tagg ko wax ne wa maryama bnata imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه أو وكتابه وكانت من القانتين وكانت من القانتين jii nag te mooy te mbokkoon ci ñi topp yàlla tegtal la ci ne la Jibril digaloon ci jële ko ca yàlla mi ngi ko daa def te mooy di topp yàlla di def li tax nu daje fii te gënal yàlla ci topp yépp muy julli te di ko ànd ak ñi koy def ndigal li mooy yaa maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warkai maa raakiin xayma bi julli ci mbooloo am feeñ ci lu jëkk li it daf ne ko yaa maryamu inna allaha astafaaki wa taharaki wa astafaaki ala nisaai alaalamin yàlla moo la tànn laabal la ci góor ñi tànn la ci jigéeni mbindeef yépp am na ñoo ne nag jigéeni jigéen ñi nga la ci jublu am na ñu baax nag ñu ko jiitu am na ñu baax it ñu ko mujj bokk na ci ñi ko jiitu asiyatu soxna so su baax si ne woon ca kër kàccoor ba di firawna turam dikkul waaye imraatu firawna junj bu leer loolu wa maryama binata imrana ji nga xam ne yàlla da ciy roylu maryama ñi ngi ko tofal ci laaye bi roylu asiya te mooy وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين wax nañu ne bim gëmee Muusa yemu ci gëm ko rek waaye dadaa wër dara waar firawna di ko laabiire bëgg mu gëm ko mu mere ko jaarak moom fam daa jaarak kum masa serem kum masa mere bañ tudde ko zul awtaad am na ñu am na ñu ne it li li andi dàkkentalu zul mooy tabax yu rëy yem daa tabax di ci wut yu rëy di ko ko tëyee lu ci ne mën moom lañuy ñuy xayma yi ba ngelaw du ko yóbbu ñu ne ku mere ngir xoññal ko da ciy wut ñeent ñaar ci loxo yi ñaar ci tànk yi te du ca yam da koy tëral ca naaj wa te du ca yamit bu dee kum jaaxaanal mu fab doj wu diis teg ca dënn ba bu dee kum dëfeenal mu teg ko fa tolloog moom xañ na wala fu ko neex rek baba baba mi faatu soxna su baax nag noonu la ko Firawna def mu ñaan ñaan gu réy gii wax ne rabbi bni lii indaka baytan fil janna ilax saa maa ngi lay ñaan nga tabaxal ma fi yow kër ca àjjana te ci Firawna ak jëfam te musal ma ci nitam ñi ànd moom di ko jàppale ci tooñ wax nañu ne suñ boroom dafa nangu ñaan gi fasaase jëlug ruuxam tàbbal ko àjjana noppal ko ci firawna ak aw nitam ñaar ñi ku ci ne alxuraan dëggal na nekkam ku baax te mooy masdar bi gën a kawe ndax ku fekke lépp xam lépp taarix defe naa ne génnul ñeent yi lu siiw tey dëgg nu war koy gandi siiwal te alxuraan moo ci jiitu ak addis bu wér buñ mën a nangu nit mën naa wér bañ nekk ab fenkat ba noppi léeg mu nettali lu wérul ngir naag wala laneen lu mën a yóbbu xel alxuraan ak hadis bu yanu maanaa ñoo jiitu ci lu siiw tey dëgg ñaareelu xaaj ba lu siiw te du dëgg ki mu ne du dëgg warul di ko nettali ndax kon day siiwal aw fen te tay ko ñetteel ba lu siiwul tey dëgg nu koy siiwal bu dul jur fitna ndax bu yàlla naree mu siiw ka muy def mu yelloo siiwal ga fam koy defee waxtu koy defee ak na yàlla di ànde dana tax fitna du am wala bu doon am yomb ju yomba not yomba fay lay doon hmm. ñeenteel ba lu siiwul te du dëgg loolu moom ñàkk koo xam tawféex la ku yàlla nattoo mu xam ko nag jàpp ne dëgg la fum mu demee ba xam ne du dëgg wër tax waxati jëm ca boo ta waxati jëm ca bay bokk ca ña koy siiwal te fi mu ku ca wax mu xamal ko li xew ku la gën a xóotub gëstu nag gën la cee yàgg gën la mën a ràññee xeeti xaaj yi ci nettali taarix lu siiw tey dëgg lu siiw te dëgg lu siiwul tey dëgg lu siiwul te dëgg jigéen ñi am nañu cër lool ci taxawaayu lislaam ak aar ko ak dooleel ko ñoo ci njëkk a dugg ki ci njëkk a dugg ci ñoom la muy soxna xadi a sayida xadija radiallahu anha di kenn ci ñu baax ñi ñëw gannaaw mariyama mooy ki nga xam ne taxawaayam ci yonente bi ak ci lim woote tax na sunu borom yebal jibril bis ne ko naax yonente bi ne ko mu wax xadija ne boroomam nee na mi ngi koy nuyu te di ko bige te di ko dig kër gu rëy caajana bokk na ca doomam ak yonente bi di maami mboolem ñi sox ko ci yonente bi di soxna faati walla soxna bintu fatimatu zahra alayha salaam kum ne mu teg ca radiallahu anha ndax ab saabala bokk ci alu muhammad nekk sax asaas ba fondement ba nga xam ne jullit bu julli bu ne balaa sëlmal bu ne allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammadin rek ñaanal na ko wala laytee mu ñaanal ko da ko dul yéene waale te loolu jàpp ma ab jullit dana ko def te bu ko defoon mokk julliwul ñoo yem ci loolu la imaam Saafii di wax ne man lam yusalli aleykum la salaata ku julliwul ci yéen amul julli يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له wax na faneen nit lu fullewu pasteefu te xarmu mel ne ku ci tontu nawaasib yi koy tegi tuuma ci ni wane ak mbëggeel ci ñoom mu ne la in kaana dhanbi hubba ali muhammadin fa dhalika